ni ko waxee noonu la koy defee. kooku faa ma seeti ko. su dig naa noo bokk a seel noo siir. kooku dama koy seeti. ni mu mel ci Balla Gaye gi. yaakaar naa loolu la ñuy gis nii. farala Balla Gaye. ñaari daanaan. xamal nooy waxee xamal nooy ko fa. te ni Ndiaye numéro 2 Doudou Sané. ñoom ñaar ñu ngi jàkkaarloo. Doudou Sané teg ko loxo ci foofu. ndeysaan ñoom ñaar. kon lii du yomb. poids lourd. ne woon naa la du yomb. Kéba Jammeh Kolsanti di Gambia plateforme ñaari luur lañ. ñoom ñaar laale nañu sànq. depuis Sudan ñu ngi lay nuyu. bëre bëre bu métti. Serigne Ndiaye moo ñu woon ginnaaw moo def ngeen bulu vert li. waaw. xame fi moo ñu woon kanam mooy Doudou Sané. ndeysaan. ne woon naa la ñoom ñaar bu ñu dajee du yomb. du yomb ñaar yëpp mérito nañ Ndiaye ndaanaan la bu ñu bëree ba paré bu ci daan di nga am ci ñu mëna Ndiaye numéro 2 ndaanaan la ñaar ñi ku ci daan dina final Ndiaye numéro 2 ndaanaan la bu ci daan bu yóbboo mis bi kërëm fet baara wax le di di war na ko ndam di di war na ko ndam di di di di daan na ko uy yaay Para naman na